parce que vous na ci ay député yo xamanteni ni nañ fa gis nañ fa ñi nga euh, voilà gis nañ fa dama lay dama lay. cité ko nak loolu man lay neex wala du ma ah, neex. ont parce que kon da nga far. voilà. da nga far. dama far fan. xawma nga far da nga bëgg ñu continuer débat bi wala da nga bëgg ah, ñu hein, non ça dépend de vous parce que vous yaay invité yaay invité ah, ma jóge Touba ñëw foo faut foo ko fi mu yem fi mais dama le wax rek parce que non dama bëgg ñu débattre dans le respect non respect mënul passer boo waxee pas d'accusation pas de délation non non non il faut qu'on soit clair sur une chose sa question ma tontu la boo pare dama lay recadrer non recadrer dama lay c'est forcé non non non c'est forcé parce que dañu nekk ci plateau et on est en direct après des milliers de téléspectateurs nous suivent loolu yëpp. si ah, sa loolu ça t'engage question ma tontu la réponse la sa question bi nga laaj. dama les recadrer. mënoo recadrer. dama les recadrer. et loolu force la. mënoo ko ak laaj. dégg nga dañuy débattre si respect. Ah, ah, mënoo ñu mënoo débattre si respect. la la porte est grandement ouverte. pas d'accusation ici sur le plateau. ça ne parle pas non ça dépend de vous Vous n'êtes que l'idée. vous continuer la porte est là et on arrive l'émission pas d'accusation ici sur le plateau pas d'accusation je vous ai posé une question vous répondez à ma question sinon on coupe le direct ça n'est pas où. ça dépend de pas d'accusation sur ce plateau je vous ai posé une question. Vous n'avez pas de réponse, mais pas d'accusation sur ce plateau. Vous faites que Pas d'accusation sur ce plateau. Ces questions, donc, moderniser c'est pas à vous de me dire poser question pas soit da respecter les gens qui vous regardent sinon vous prenez la porte non, non c'est pas comme ça C'est comme ça. non non c'est comme ça donc vous prenez la porte donc vous prenez la porte DJ jégalu bu de téléspectateurs yi di rendez-vous mercredi prochain ci une émission dans le respect et la considération clash bu mag bu dox ci digg journaliste bu 2STV bi lee di Astou ak ki nga xamante euh, mom moy Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké lolé nak jamono jidé daan né nak bari ciow lol mu nekk lo xamante demb la am ci àllarba bi fa nga xamante mom moy ci diwanu 2STV ak gannaaw bu journaliste bi lee di Astou invité ki fi nekkoon député bu 14e législature bi dé euh, di Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké gi nga xamante nak mom moy journaliste bi lee di la ko mer Lo mu ngi jugee ci ab réponse boo xamante ne homme politique bii di Cheikh Bara Dolly daal dina ko koy nag wax ba mu ne nag da ngay bañ nii nag yow mile nguur gi nga àndal maanaam nag ci parti bii di Pastef fa nga bokk ndaxte nag la may laaj noo ne yaa ma ko gën a xam ki nga xamante ne moom mooy astu Dione maire ba futu dal di koy nag ne li ngay wax nii boo ci jaaraatee di nga jugee ci sama plateau ñu yemale fii li nga xamante ne moom mooy bile émission émission bi dañ koy mën a def ci respect ak li nga xamante ne moom mooy considération su mënta nekk nag nga jug dem euh, ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Bara ci saa si la jug daal di quitté plateau bu 2STV bile Astou Dione la mu ca teg mooy jéggalu ñi nga xamante ne ñoom i téléspectateurs yi leen doon seetaan la mu xamle mooy nag yàgg na def li nga xamante ne moom mooy émission bile juróom-ñaari at mu ngi nag nekk ca 2STV gile tàmbali li nga xamante ne moom mooy carrière te kenn mësu ko dégg ci li nga xamante ne ne moom mooy émission bile gis ne di nag Cheikh Bara mu ngay tàmbali di nag dépassé borne yo daf ko nag bëggoon a recadré li nga xamante ni nag moom mooy recadré boobu moom itam ca la juumee ba tax na sax def na ab poste di jéggalu ñi nga xamante ne ñoom ñooy téléspectateur yi ko doon seetaan nee na nag bi la yoon juum na te xam ne nag moo juum mu ngay jéggalu bu baax a baax ndaxte nag événement yooyu tournure ba mu jël nekk lu ko gënal te nag mu ngay jéggalu képp koo xamante ne toogoon nga di ko seetaan bi nga xamante ne daal dinay juum te nangu ne ni dafa juum jéggalu na ab poste def di xamle li ni mel la discours bu màgg ba président Diomaye Faye def nga xamante ne moom mooy ci États-Unis d'Amérique jamono ji la nag mooy nag ndam lu rëy loo xamante ne Sénégal am na ko bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moom mooy Souleymane Jules Diop tribune de l'ONU googee nga xamante ne Bassirou Diomaye Faye def na fa discours ba marqué ne esprit yi loole nag la Souleymane Jules Diop daal di xamle Bassirou Diomaye Faye am na ndam foofee nga xamante moom mooy ci États-Unis États-Unis d'Amérique googee gannaaw rek li nga xamante ne moom mooy discours ba am solo ba mu def mu yem woon nag nag 79e session ba nga xamante ne ONU da ko doon amal mu nekkoon nag ab assemblée générale boo xamante ne amoon na ca dëkk boobee di New York ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew bu Sénégal na ko dirigeant africain yi defee nu ko raw la ko defee daal di nag def discours ba am solo boo xamante ne nag na ci esprit yi ba ñu ci ki nga xamante ne moom mooy Souleymane Jules Diop nee na dignité ak respect ak différence yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci li nga xamante ne moom mooy discours boobee ak comportement ki nga xamante ne moom mooy président Diomaye Faye nekk na loo xamante ne daf koy rafetlu bu baax a baax Souleymane Jules Diop nekkoon fi ambassadeur foofee nga xamante ne moom mooy ca diwaanu New York nekkoon itam koo xamante ne jege woon na lool président Macky Sall ndaxte nag ci gouvernement am boobee la nekkoon doon fa amal ab liggéey daal dinay nag apprécier bu baax a baax discours ki nga xamante ne moom mooy actuel président bu Sénégal di Diomaye Faye élection législative 2024 docteur Cheikh quotidien daal dinay nag wane fa mu far gannaaw coow li ko toppoon ca kër googee nga xamante ne moo ko jiite woon di ONAS di office l' assainissement mu nekk nag koo xamante ne xeex boobee ñu bëri jàppoon na ne dafay wan gannaaw parti bi nga xamante ne moom mooy Pastef wan gannaaw coalition Diomaye 2024 tey ji la nag kii di docteur Cheikh Dieng rustoo na ñu bëri moom ak parti politique bi nga xamante ne moom mooy fatt fépp daal dinay nag wane ne jamono jile tey la gën a jox bopp ki nga xamante ne moom mooy jiitu réew bu Sénégal tey la gën a ànd ak ki nga xamante ne moom mooy premier ministre bu Sénégal di Ousmane Sonko nee na nag jamono jiile daal dina leen a nag fas kii ne gunge ci li nga xamante ne moom mooy élection yooyu ñu jàpp ci datub 17 novembre ci liste Pastef yooyu fa la nag bokk te nag moom ak partem bi ci liste Pastef yooyu ngir nag ñu ëppale li nga xamante ne moom mooy ay député ci assemblée nationale Gueye victoire bu màgg la bëgg nag list bu Pastef bi lee daal di koy am ki nga xamante ne nag moom mooy docteur Cheikh Dieng mu ngay woo ñi nga xamante ne dañu bokk ci parti bi lee di Pastef ñu def seen kéem kattan liggéey fexe nag ba garantir li nga xamante ne moom mooy ay conditions meilleures ñi nga xamante ne ñu muy askan bu Sénégal ak taw yu métti yi nga xamante ne wàcc na fii ci diwaanu Sénégal démb rawatina ci capitale bi di Ndakaaru Njaay gis nañ ne nag li nga xamante ne moom mooy dégâts yi bëri na ba tax na sax li nga xamante ne moom mooy dem bi ak dikk bi daan nay sooke bu baax a baax ba nag société nationale bi nga xamante ne moom mooy Dakar dem dikk am ay jafe-jafe ci li nga xamante ne moom mooy trafic bi jamono jile nag génn nañu ab communiquer di xamle li ni mel nee nañu nag dégâts yi ak ndox bu bari bi tax na nag ba di nga xamante ne mooy nag trafic politique bi dañ koy dakkal ci bésub tey bii lee ba nag li nga xamante ne moom mooy ndox mi wàññeeku fii nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Dakar loole nag la ñu xamle gannaaw rek li nga xamante ne moom mooy taw yu métti yi wàcc fii nga xamante ne moom mooy ci diwaanu lépp lu jëm ci réseau transport interurbain bi dakkal nañu ko ci société boobu nga xamante ne moom mooy Dakar Dem di jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon ci chaîne bi nga xamante ni moom mooy mi TV loole moo fi yësandiwoon ci xibaar ñu leen di sant bu baax a baax di leen leen di leen jox dig daje ba beneen jaa ngeen